yow def nga lu bëree bëri lu baax waaye nag lii la ñu soxla lii la ñu soxla lii la ñu soxla ñëpp tàcc na wax na ko dëgg de te juróom fukki at ak juróom-benn yéen a nga wax ñu dëgg te dara sottiwul ci li ngeen a jooy. moo tax ñu ne nag loola dëgg doxalin bi moo sellul koo fa def te waxul la ne dina isi doxalin bu sell dara lu mun ci réew juróomi at yango dafa nekk rek wécc xar te amul benn wécc doxalin système change mooy wécc doxalin li tax seen dëkk yi mel nii ngeen di fay lemp yi di fay laysin yi di fay juuti yi njur gi di fay ñëpp di fay mooy ne loo leen ñu yóbbu erreur kansul doo leen ko gisaat lii moo tax seen dëkk yi mel nii ñun ñu ne loolu dañ koy wëcc dañ koo dàq ndax xam ngeen ni kër su amul dépasse tas et euh, VDC bu amul dépasse amul kees naka laa mën a essayer yokkute ci booy la ñu ne nag ci suñu doxalee léegi booy raam loo xam ne li tey kër la juuti la laysin la loo xam ne yi si njuri luñ mun a fay du demati area council dafa dugg ci keesi booy ndax dégg ngeen wax bi dinañ ko dugal ci keesi booy su ko defee at mu nekk VDC dina seet ñaata moo nekk ca kees googu ñu seet ndax dañooy defar yoon ndax ndox mi lañoo ñu def ci ci ci ci tool yi ci naako yi ndax foo xam ne fii foofu la ñu denc gerte gi la ndax luy toppatoo lopitaan yu ndaw yi la waa dëkk bi nekk ñuy liggéey foofa lu nekk la ndax football yi fii li xale yi la ndax jëndal leen ay ves la ndax ñu mun a gën a yëngal seen yaram ñu ndamoo boy raam ndax boy raam moo leen jox loola mu nekk mbubbi boy raam ñuy ko xëccoo ak ñeneen ñoo xam ne ñoo yeneen dëkk itam jox na leen loola bon nag suñ seetee xayma ñaata alal moom la ñu soxla pour doxal projet yooyu ñu kees ne kees gi mun na ko antal ñu doxal ko su fekkee ne kees ga antalu ko wan nag kees gu mag ga dañ ne ñun ñëpp fa tekk léegi naka laa ñëwee ci seen dëkk yi ñu ne ni moo ñëwee ci seen dëkk yi at mu nekk région bu nekk dinañ am luñ ko sedd ca kees googa pour mu nekk loo xam ne lii dina mën a dox ndàmpaay dëkk yi bugg a am projet yoo xam ne moo leen war a yóbbu kanam bon nag projet yi su fekkee ne am na lu ca des ci alal dañoo dem ca kees région ba dal di ca tibb ñoo jox booy raam mu doxal li nga xam ne mooy projet am bon alali réew mi mu ngi delluwaat ca borom su ko defee at mu nekk dara defaru at mu nekk dara defaru at mu nekk dara defaru juróom fukki at ak juróom benn su fekkee ne néew mi nii la doon doxee ndax booy rànd mel nii tey doxalin mooy yóbbu réew mi kanam doxalin moo koo delloo kanam léegi nag ëllëgi Gambie mu ngi ci seen loxo ñun wax nañ leen suñ yore woon réew mi niñ koo doxalee ci wàllu koom-koom te lu bari lañu wax itam dañ bugg a gaaw dem ci yeneen boori ngeen di déglu rajo yi suñ tiim yi itam dina ñëw tojal leen liñ bugg a def yëpp mbéyam éducation doo leen ci fayaat bu ci seen njaboot gi suñu demee dinañu am ndekki am añ yooyu yëpp bokk na ci suñu programme seen dëkk bi dina am loppitaan boo xam ne bii yéen ñi nekk doomi dëkk bi dinañ ci jàngal naka la toppatoo faj yu ndaw yi district bu nekk dina am hospital boo xam ne lopitaan yi dëkk bi soo amee jafe-jafe ñu rifaa la ca hospital boobu jigéen ñi nga xam ne ñu ngee matul dinañ jàngal ay nit ñu leen a toppatoo ñu seet wërngël gii fan la ñoo def ambulance ba nga xam ne dina teel a egsi su fekkee ne amee matt bu jafe yóbbu la ca district hospital dafa bëri